accompagner maître euh, euh, ngeen jëf mbokk internet yi gis ngeen ki nga xamante ne moom mooy euh, Bamba Fall di maire Médina actuellement mu ngi ñëw ci Tivaouane di participer ci li nga xamante ne moom mooy nettoyage bi at bi nga xamante ne moom lañu nekk di def nii. xëy na bu ñu paree dinañ ko jéem a approché euh, pour mën a am euh, benn mot par rapport ak li nga xamante ne mooy euh, la réaction alors monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax di bu baax. sant bu baax a ñu fekk la ci liggéey bi ngay barkeelu par rapport ak nettoyage bi mu mel ni rek yaa ngi def sa participation ci gàmmu gi laataa sax ñu ci yegg. waaw noon la ni ñu ko defee Touba rek la ñu waxoon moom la ñu defee Tivaouane biñ ko defee ci almeeru Dakar yi tamit dañoo ñëwoon tey jàppale waa Tivaouane ci nettoiement bi def ko barkeelu rek waaw. ayca mu mel ni euh, euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ossature gàmmu gi at bu jot dañuy gis ne dafay jël beneen dimension. loolu ossature gàmmu gi. at bu jot dafay jël beneen dimension. loolu ah, aussi bëggoon naa nga ñëw ci. bisu bisu yonent bi la nag day gën a jëm kënam rek te yaakaar naa liñ ci def ren déwén yéene ni ci lu ko ëpp bisu bi moom amul leen lu mu tollool lan ngay wax si li nga xamante ne moom moo xew fële ca Mbour àdduna bi yëpp di ko méttitlu muy phénomène immigration clandestine ñu gis ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan jamono ji lan ngay wax jeunes di ñaan yàlla rek yàlla na fi gëj di wax tamit euh, état bi ñu gën a jàppale xale yi rek yaakaar naa ne xale yi dañu commencé am désespoir ci lu bëree bëri daa mel ni les autorités ou l'état ne rassure plus nañu gën leen a may confiance xale yi gën na a téye gën leen a encadré bu ko defee vraiment ñu mën a toog ci dëkk bi. lan nga jàpp ni moom moo war a nekk solution bi. ah loolu am na solution te yéen aussi am ngeen ci wàll. déedéet ñun amuñ ci benn wàll ñu yor réew mi ak père de famille ñu ñoo ci am wàll ñoom nañu wax ak xale yi may leen confiance jàppale leen ñu toog. fi tasul ca kaw loxo ca kaw ñi nar a baax yaay seen sëriñ maam xalifa samedi ba samedi la daan wata dàq fi raw fi ah, waaw yàggu fi yàggu fi ñi nar a baax yaay seen sëriñ maam xalifa Vous saviez, dans le cadre des vacances citoyennes, la commune de la Médina a organisé pas mal d'activités. donc des, des, activités sportives, culturelles et environnementales. Il y a les cours de vacances qu'on organise à la Médina, les camps de vacances, les tournois de football ou de basket. Mais on avait décidé aussi, dans le cadre de la salubrité publique, chaque matin on organise, euh, n'est-ce pas, un CCTL dans un quartier. Ce qui nous a amené à Touba dans le cadre du Magal. Aujourd'hui, on est à Tiwawan pour organiser, pour participer même euh, à la salubrité publique, au nettoiement, pour préparer le gamou. le Gamou est euh, dédié au prophète Mohamed. Donc nous, nous n'avions pas besoin d'autorisation. Nous avions salué le représentant de la conférie, euh, notre guide et père Niol Fouta, qui nous a donné l'autorisation grâce à notre ami Sidilo. Nous remercions toute la communauté tidiane et toute la communauté musulmane. Aujourd'hui, on a mobilisé plus de 8 cars venant de la Médina, ce qui fait plus de 400 personnes, pour nettoyer, n'est-ce pas, les aouillers et quelques rues qui aux alentours. C'est notre devoir et nous continuerons à le faire pour chaque année. Euh, euh, Il a prié pour le Sénégal et prié pour la Médina et pour ma modeste personne. Nous prions aussi pour lui et pour le khalife et pour les autres. nest pas? Une très longue vie et une santé de fer aussi. C'est l'essentiel et la stabilité dans notre pays aussi. Le programme d'aujourd'hui, c'est permettre aux jeunes qui ne sont jamais venus à Tivaouane de venir à Tivaouane. Permettre au Médinois aussi qui, le jour du Gamou, auront des difficultés d'accès la où nous sommes aujourd'hui et voir les marabouts. Donc ils ont fait leur ziar, ils ont vu le marabout et de leur inculquer que nous, en tant que euh, jeunes républicains, citoyens, nous devons prêter main forte là où l'État l'aura besoin, là où la communauté l'a besoin. Aujourd'hui, c'est Tiawan qui organise. Nous sommes à wan Demain, ce sera une autre confrérie. Nous y serons aussi.